Euh, ñun dañu comprendre parce que ñun suñu série yi dañu ci gis xale bu ñaaw. Mm. wala bu amee aussi lu raar la est que acteur wala actrice dafa war impérativement rafet. lan la ñuy seet ma may la benn anecdote mhm. Euh, quand ils ont fait le casting de Tay aujourd'hui pour mmh. Alain Gomis. Mmh. Je suis allée au casting, toute fraîche, sans maquillage ni rien, mais j'étais quand même bien dans ma peau et j'étais bien habillée, Et ils ont dit, elle est trop belle pour le rôle. Hmm? Comme quoi, quelquefois, ñu baa ñu soxla ko pat mbaa ñu soxla ko c'est pour dire que euh, du lu figé euh, réalisateur lu mu soxla rek boobaa loolu lay dugal ci film yi et on verra que dans beaucoup d'autres projets di nga gis euh, ki baax comme ni nga gisee ki bon mm-hmm. donc je pense que côté esthétique bi aussi mën nañu ko gisee de manière différente am na ñoo xam ni nit dina ñaaw ba mel ni bul xam mais kooku moo leen di neex kon am na lu rafet ci kooku ba tax loolu moo leen intéressé. que acteur lan ngay lan ngay jox réalisateur bi ba convaincre ko pour mën a nekk actrice principale wala acteur principal est-ce que euh, expression lay doon est-ce que ay émotion yooyu mën a incarner du tic au tac parce que j'ai vu une actrice euh, Soumboulou. Mm-hmm. Souloumou Bathily sama xarit la. Mhm. et euh, là cette rapidité de pleurer de te mhm. de rire dans dix secondes. après mhm. mu jàll automatiquement si jooy. est-ce que loolu boo ko mënul mënoo nekk actrice. wala euh, c'est variable. yenn saa yi di nga tomber ci rôle par chance. Euh, parce que peut-être dañ la jox rôle bu la nuru. mais le vrai acteur il est censé pouvoir donner toutes les émotions. donc war na nekk koo xam ni même sans texte. jox ko rek juste idée de ce que tu veux mu war la ko jouer hmm. donc euh, c'est quand même euh, un point qui est important de pouvoir incarner n'importe quelle autre euh, situation